booy ma kat. ma tee nii nga ma toj sa lu baax kat. sa morom nii nga nii nga nii nga. ma foofu kafe xam nga nii nga ma xamul ni ndégg la doo ko wax. ma foofu kafe na gaaw damay génn. ndànk rek nii laa lay wooye nii nga laa lay wooye ba neexal ba naqar yëpp nii laa lay wooye. problème saalim doon lii xawma sax fa laa war a teg te saalim doon lii dama dégg ñu day explose boo fi tegee day taal ko nii day explose laa war a taal de ey king king king boo yow fi ñuy taale kii bi kaaru na fi ñuy tët tët tët man xawma fan jëm ak kii quoi waa xaaral ma ñëw seet teet teet teet booy. yow yow yow yow yow nu ma la defloo rek nga nga nga nga nga xëpp ci dara quoi yow lan la café rek mënoo koo tàngal. ñu koy tàngal bi ñëwee bële yi waxoo ma ne fii dina am na tey. oh my god. waaw café bi ñu koy tàngalee. foo yaakaar fii laa yaakaar ne fii boo fii moom xam kaas nii loolu daa ko bàyyi. léegi fii est-ce que nga ko. lii mooy microwave fii nga koy dugal. boo ko dugalee la tëju fii. waa déglu ma rek bu ko la wax nga bëgg koo. na fi gisoo jaay booy charab. fii nga koy dugal. nga tëj ko boo ko tëjee ne comme ni ma koy tijji xanaa gisoo numéro yi yaakaar na comme ni ma koy tijji. numéro yi da ngay dugal numéro bu la neex bu ko boo defee deux minutes da ngay def deux def zéro zéro def euh, kii bës bouton bi mu commencé. bouton bi ngay mi ngi nii bësal boo ko bësee mu ñëw. waaw lii rek lii nu mu yombee. gaawal tàngoo ko damay dem sama jot la dama war liggéey booy na gaaw misaan toni wuyu ma na gaaw ok misaan toni ndax affaire bi muy tàkk waaw bu ñuy tàkk bu noppee nii rek ngay def mu fay oh. maa ngi dem toog gaawal café yi dama ko soxla yàgg de damn affaire bi sax xanaa nga jékki-jékki rek xëcc di fay de mir مير أما دينا دي اللهم صل على سيدنا تبلن يا الله Ini mau kiri, ini mau sugar, mau sugar rek, mau yang beragam, ini mau sugar dong. dok dok dok nak kër gi fii daal fexe mu jàpp may teg ma ay ay liggéey fexe mu fii di taxawaal rek ba ko man rek cái que mii ne dëkk ñu mii ne Amérique nga xamante ni maa ko gën waaw kas moom ko sax fii laa koy booy bakkat yow kañ ngay ñëw daf man daan ni nga ni nga king man ni nga xoma kan moo ni nga laay wooye ni nga king laay wooye waa ni nga cái gaa ngi noonu bàyyi bari na waaye war ngaa wutal téléphone rek de téléphone téléphone bu may déggee sa ndey sa ndey waaw booy lii lan la café café suukar xam gënoo ma xam ne café lii suukar la suukar la waay waa neex na kay ñamal ñamal ak a neex looy buusu doo ko naan la di lu nga buusu ko pour a fekk laa ko fekkee feefan mooy benn affaire bu benn kii rek benn kii rek lu mel ni biteel rek après ma di. Oh benn affaire weex rek. yow kon xorom nga ci def nii kon. xorom ah man dama yaakaar rek xooli daa def suukar daa ci def waaye dama yaakaar suukar daa ci def ndax damaa fekk lu mel ni saa si laa ko jël après daal jël kii bi daa koy sotti pare daal kii ak nii. nga ba noppi ah. ah wax nga ba noppi répété naa ba noppi dafa répété naa ba noppi dafa mën a. wax nga ba noppi. li seen diir waaw pare nga am pare naa waaw. nga sotti kafe. fu ma koy sot léegi su ma sotee ko nag léegi yow léegi yow après yow man dama lay segg laa kaf ah yow barki Sëñ Fallu Mbàkke da nga nekkee man dama la see bàyyi bindee yow ma fippoo bindee bu ma la dul rek da ngay wàcc